bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala alhaadi alamin sayidina wa mawlana muhammadin almakin wa ala alihi wa saxbihi zawi ridwani wa tamkin assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi ak bokki taalib yi ñu ngi yëkkati suñu kàddu ci ndigalu ki fi nekkal cheikhul xadim di al cheikh Mahmoud Muntaxa al xalifatul aam li tariqati lmuridi xafidahu llahu taala wa mu kàddu yoo xam ne bi ñu koy jëm ci mboolem bokk jullit yépp rawatina ñu mu seqal lislaam ci weeru tedd wii di weer wi nga xam ne ci la rasulullahi sallallahu alayhi feeñee ci kaw suuf muy laylatu mawlidin nabi mu ci ndokkeel kon mboolem këri diine yi ci mbokkal ndokkeel mboolem ñoo bokkal waaye di ci boole ndokkeel mboolem ñi mu seqal àdduna ndax bis bii kat yonent bi sallallahu alayhi wa moo tax suñ borom teral bindeef yëpp kon koo xam ne bu amutoon kenn du am kooka képp koo xam ne yaa ngi ci kaw suuf boo ko yëgee ak boo ko yëgut na nga xam ne yaa ngi dund ci tedd yaa ngi dund ci tedd nga am yaa ngi dund ci teraangam kon Cheikh Mouhamadou Mountakha joxe waa ndigal ca ne ko kilifaam yi ko jëkk daan defe képp ko fi mos a nekk Serigne Touba mu yeesalaat ndigal ndax gàmmu bi ku ne xam na ne euh, Serigne Touba ñaari bis ak la amoon bis bi mu jégleel yàlla suñu borom tabaaraka wa te mooy màggal Touba. ak bis bi nga xam ne moom la jagleel rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te daa ko def di ko ànd ak bindeef yi muy loo xam ne lu yàgg la ndax laylatu mawlid annabi min asasi wa qaada li fawqa huna fii jamsasi aw fii talsasi bi ibaratin uxra kon Sëriñ Tuubaa yoon murid dafa juddu rek moo tàmbalee woote gàmm gàmm goo xam ne itam ñëpp xam na ne fu mu mas nekkee nekke dundale na ko fa ndax dundal na ko ci biiru nit daa ko wote dundal na ko ci bi mu nekkee ci alxaybatul baxriya nga xam ne moom rek daa wéet di ko dundal ba yàlla doo suñ borom del dogal mu dellu siwaat ci Sénégal ba ñu def ko ñaareelu exil bi mu dem Mauritanie ba dellu siwaat Sénégal ci ci yéen Jolof mu di ko def ba yàlla def mu ñibbisi ci fi mu mujj nekk nag muy njaareem nga xam ne ku tudd njaareem rek saxee dem ci gàmm sëriñ bi daa ko woote bu agsee itam teraange yu bari lool dañ ko daa yóbbu fépp ci dëkk bi ñëpp di ko yëg fu ne taali bi daa fa bàyyi ko ñëw di dundal guddi gi sëriñ bi ci loxoom yu tedd ya moo daa jiite lépp di teraange yi ci loxool boppam loo ko daa defee di teral nit ci kafe ki nga xam ne suñu borom da ko ko rafatale ak ataaya ak mboolem xeeti bernde yi nga xam ne xam ngeen ko rek moo daal jugal boppam di ko def di jël laj ko bi mu gënoon a fonk di zikki ak miski di ko sotti nit ñi ci guddi gi wax nañ ne weeru koor ak weeru gàmmu sëriñ bi li muy tabe tabe ndax mu sa am soxla ci àdduna ndax loo ko mos a joxat dala tegal fi waaye weeru gàmmu nag ak weeru koor bu agsee ak tabeem day yokk ba ñépp xam ko di ko dàkk ndax loo ko wax mu ne danga koy waajale sama gan gu tëdd gi kon nag loolu sëriñ bi foofu la ko tegoon wax na ci lu bare bari ñu daa ci jàng gis bu mawaahibu muqaddimaat muqaddimaatul am daa nga xam ne lépp ci tagg rasulullahi sallallahu ak miim ya daa ci jàng itam albarzin jiw ngir leeral jaajaay rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon Serigne Touba ko fonkoon guddi la guddi gàmmu la noonu nag loxo mboolem njabootam képp daan defe ko ko fi mas a nekkal tàmbale ci Cheikh Mahmoud Moustapha al cheikh Mouhamadul Fadil al cheikh Abdoul Ahad al ku ci ne guddi gu masaan agsi dama ko daal dundal ba bët set ba jiite nit ci jàkk ji al cheikh Saalihu Mbàkke nag yàlla def suñu borom defal ko ci xaas ndax moom ku xam na ni lu jëkk muy doon sëriñ Touba Touba gàmm gi moom rek moo ko daan woote ci biir kër mi ci liñ mën a xam ñëpp dem di ko fekke moo tax bi mu agsee nag nit ñi ngir dàkk bëgg ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa ci la nag murid yëpp xam ne nag gàmm kat ndeke eh, lu ñu wax def la mu woote ko ne ci at mu njëkk ba waaye mu yëg ne diis na ci nit ñi ndax màgget gi gàmm gi dafa jege mu santaane waat waxaat ci rajo bi ñëpp dégg mu ne bépp barab boo xam ne kër Sëriñ Tuubaa am na fa wala jàkka nañ fay dem diggu fa dundal ndax yéram na nit ñi ci dem gi dellusiwaat Touba fépp foo xam ne nag kër sëñ tubaa amu fa bokk julli ja fa gën a jege nañ fa dem ànd ko ñoom ngir xam ne loolu mooy liy dundal al uxuwatul islaamiya ñu du ko def ci eh, Touba nag ci mag ci jumaay tubaa ji ak penc ba fi mu toll nii ñëpp xam na ne gàmmu Touba àgg na foo xam ne eh, bañ rek lenn lenn loo xam ne day indi fitna ci nit ñi moo tax. waaye xam nga ne dëkk ba kenn xëjatu fa ngir na bi toll ci gàmmu gàmmu njaari mi itam xam ngeen dam deme kon loolu yàgg ci yoon wi la bi mu fa bàyyikoo itam ki ko njëkk wutu ci sëriñ sëriñ waaye di Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké noonu la ko wéyale ànd ko ko njabootu Cheikh Salif Mbacké ci njiital sëriñ Cheikh Mbacké sëriñ Salif ñëpp xam nañ ne ba mu ko dalee dundal yàgg na ca biir këram boobu sëriñ baa ngi fi ginnaaw bi itam ak Cheikh Sidi Muxtaar ñëw wéyal loola di ko def di ko dundal bañ bàyyi ko fi nag Cheikh Mouhamadou taxa yàlla fi yàgg te ànd ak wér taxawaay bi mu taxaw ci lislaam suñ doon gën koo kattanal ba mu àggale ko ni mu ko bëggee moom mooy tax mu koy fàttaliwaat taalibe bi nañ ko na ko bi daa santaane rek dolliwu ci daal li ci yeesaat rek mooy daaw bi mu doonee Serigne Touba daa tàmbali di wax ne ci biir kër Cheikhul Khadim bi la koy defee mu Euh, sëriñ aatu jël liggéey bépp teg ko ci suñu loxo sëriñ atu nekk jëwriñ ji di ko taxaw di ko taxaw ci jumaa di ko taxaw ci pénc mi ci biir loolu itam mu yee salaat ndigal li nga xam ne kilifaam yi joxewoon nañ ko muy daairatu muqaddamatul xidma bi nga xam ne ñooy saytu jumaay Tuubaa ji ci màggal ak lu dul màggal ñoom itam ñu dundal gàmm gi du ko def ay at ba ginnaaw bi waa daayiratu Rawdu Rayaahiin eh, bi nga xam ne moom itam daayira bee Serigne Afi Bousso moo ko jiite daayiratu Rawdu sëriñ Serigne Ahmadou Badawi moo ko jiite ñoom naa ñu ànd nag lëkkaloo ci ndigalu sëriñ bi di ko dundal na ko Serigne bi daa dundale ci njaarim mooy def ñetti kuréel ñi jàng gës bu ñi jàng mu wax bi ñi jàng mu xaddimaat ñii di jàng eh, albarsan jiw ñoo itam ñu di ko fanaane ànd ko ba fajar bu sëriñ bi àndeek bokk taali bi yëpp nag ak bokk julli ci biir kër Cheikhul Khadim dundal ko ba fajar nag mu àgg fa ñaanal leen euh, incha allah bu àndee dogalu bi yàlla mu dem ci jumaay Tuubaa ja julli siyaarewaat Cheikhul Khadim yee salaat postef digg ma moom ñaanal nit ñi bañ dellusiwaat déwén jàmm ndax guddi kenn di Sëriñ Tuubaa digle bari na ndax ihyaau mawlidil bashir yaxmil ayaala wa duyóor fihi shifaun li sudur li kulli haadin muntami fa man tahaman hayya liman lahu qad qaraa mubajjilan fa xaba xayraati ahlil himami wax na ci lu bare bari bari dem na ba àgg ci wax ne laylatu mawlidin nabi laylatu mahwi riyabi laylatu mahwi taabi wa tuhrihi i waaye nag wax na ne nañ ko dunda ci sunna waxut ne gàmmu sunna la Cheikh Saliou daana fàtte at mu jot nee na waxut ne gàmmu sunna la waaye nañ ko dëppale sunna kon dëppale sunna nag mooy lépp loo xam ne sunna digle na ko rek ñu fexe ba di ko ci def loo xam ne lislaam bañ na koy ñu fexe ba bañ ko ca def te xam ne guddi gi kat lépp lu ab jullit am ci lislaam muy teraanga adduna wala alaxira ci guddi gi la ko amee ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa loo ko suñu borom jagleel mooy bis bi nga xam ne ci la buumu njaam dog mooy bis bi nga xam ne ci la suñ borom daaneel kéefar yëkkati lislaam ba dina tukki ndax rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam suñ borom dafa dajale ci moom ndax yonente yi ko jëkk ku ci ne yaa qawmi la daa wax muy yonente yàlla Huud yonente yàlla Luut ñoom ñëpp ku ci ne ba ci boo xoolee yonente yàlla Muusa ak Isa yaa bani Israayil moo ëpp ci seeni wax waaye rasulullahi nag suñu boom da ko wax ne ko ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas ak ko ma arsalnaaka illa rahmatan linnaas ak li unzirakum bihi wa man balagha kon mission tey moo tax mu daj àdduna kon loolu képp koo xam ne ak jullit nga sëriñ Saliou daan wax ne guddi gàmmu de yemale ko guddi ga ko jëkk ak ga ko mujj dara jëru ko ci jullit kon la war nañ ko fàttali kon yéen ñi nga xam ne yéen nekk ci daayira Hizbut Tarqiyyah ci njiitalu sëriñ Aatu ci ndigalu sëriñ bi mu ngi salaat ndigal li na ngeen ci daa taxawee rek ndax yéen xam nañ seen posture xam seen taxawaay ndax buñ leen soññu itam yaa ngi ci sëriñ bi rek ngeen kon na ngeen ko daa defee rek mbirum sëriñ Tuubaa moom rawat na li jëm ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa war a jëm kanam ginnaaw kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan ñu tabbi ci bismillahir rahmanir rahim tam mboolem di ci suñu doom daal ñu day ci ak moom day ci tawfiq wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa